même ñu ngi jëm ci formation gouvernement bu njëkk bu Bassirou Diomaye Faye moom euh, ca intérieur war a ko fa mën a bàyyi hmm, bàyyi non je ne pense pas mais bon il a rempli sa mission en tout cas d'organiser un scrutin transparent parce que ñëpp loolu lañ doon xaar scrutin bi moom euh, ni processus bi demee moo tax nit ñu amoon jixi yaaxa ci déroulement scrutin bi les processus bi dafa jaxasoo tellement am bëri ay violations euh, bu ñëwee ba ci jour du scrutin bi à quelques jours du scrutin Macky Sall jël décision mm-hmm. nommé Mamadou Matar Cissé euh, au ministère de l'intérieur Mansour Cissé xam nga daa dëgër fi waaw nee na Ousmane Sonko proposé Ousmane Sonko proposé <laughs> mun na loolu loolu mun na <laughs> loolu yëpp mun na nekk mais en tout cas bi mu defee choix boobu eh. ñëpp seen xel gënoon na dal quand même dégg naa sama Ousmane Sonko wax ci waaw xam nga i xam nga xam nga un commis de l'État aussi c'est hmm. euh, IGE la inspecteur général d'État la donc euh, à un certain moment boo xamante ni tolloon nañ ci foo xamante ni dëkk bi Euh, lu ko taal yomboon na trop étincelle ci jour scrutin la gën a yombee c'est-à-dire bu amee ji benn kii bu ndaw rek mën a taal réew mi donc fallait nga jox ko benn nit boo xamante ni vraiment mate na ko te comme kii nga xamante ni mooy directeur général des élections bi moom dafa daanaka dafa féetee dafa daa am piite euh, te wone ko fallait quand même une personnalité boo xamante ni waaw ca ndeela laay wax mm-hmm. dafa am piite te wone ko depuis le début ay mm-hmm. décision de justice wàcc fi mu lànk ni du ko appliquer Euh, donc fallait une forte personnalité boo xamante ni bu ñëwee euh, dina jël affaire yi teg ko ci yoon euh, ba scrutin bi jaar normal maintenant nag quant mu war a ñu war ko imposer ci ci ci kii boobu moom je pense que déjà mënuñu ko écarter ci attelage bi parce que c'est un IGE Euh, inspecteur général d'État la après day demaat ci ci inspection générale d'État continuer foofu def liggéeyam donc il ne vit pas de la politique c'est pas quelqu'un qui vit de la politique c'est un haut commis de l'État euh, donc il n'a pas besoin de de de de la politique sax euh, pour pour vivre quoi. et mm. puis lui mm-hmm. interdit même de faire de la politique. donc man noonu laa ko noonu laa ko gisee quoi en tout cas il a vraiment très très très bien rempli sa sa mission à part quelques couacs yoo xamante ni amoon na jour scrutin bi mooy li parce que après loolu foog ñu waxtaan ci parce que carte électorale mënoo ko jël écarté ci ñenn ñoo xamante ni sous prétexte que ñii nañoo changé département Kër Massar léegi dafa doon mhm. département mais on a on a vraiment empêché à des milliers de Sénégalais ñu voté jour boobu et puis Euh, le président de la Sénat vers il a fait une déclaration importante mu ni képp bépp sénégalais bu inscrit ci fichier électoral bi mm-hmm. am nga droit voter même suñu transféré sa sa sa bureau de vote donc diligence bi mënuñu woon bàyyi ba dix-sept heures ñuy doow a trouver leen léegi mën ngeen a mais loolu mënu nañu ko def depuis huit heures permettre nit ñu voter wala ñu leen di yóbbu ay ay nu maa di xaw ma dix xaw ma ray boobu dañ ko def juste pour empêcher les waaw bàcc yi bàcc yi bàcc yi métti na trop mais bàcc yi dafa gënoon a métti dafa waroon a gën a métti bàcc yi métti na bàcc yi dafa métti tele na nelaw gor da daan taxaw ci oto naan pirip dip yi dara <laughs> <laughs> mayul gars yi dara man nag ndekete Mamadou Matar mooy sama combat com nag ah Nabou nag li Nabou li wax yëpp yaa ngi bëgg a sikki. Ah. <laughs> toi je t'aime bien Ngoné. yal na yàlla guddal sa fan. lan la tamit yow li nga bëgg dara baaxu ci yàlla. <laughs> dafa doy waar jabaram mu ñuy seetaan nga bëgg de mooy sa combat. Eh. dama la waxoon avant émission bi rek. dëgg la teel <laughs> loolu rek. Nabou nag mais Nabou nag am nga buzz. Nabou keroog bi ma publier sa photo bi. Eh. la ilaha illallah sama portable tuuti mu toj. xale bi xale bi xale bi xale bi ma leen def leen dànk rek. doucement nga leen amul xol wax leen loolu. ah booba nga leen waroon wax naan leen. Ah. na ku la ko di lii bu Fatima Kide. moo may wër di ma yàq ci réew mi xale boobu xale boobu yàlla na yàlla àtteeg moom. dina <laughs> ko gis naa xale bi jekk loola gis naa xale be. ñu ñëw ci. Euh, deuxième point. bi nga xamante ne moom la ñuy euh, waxtaanee. ginnaaw euh, élection wu président euh, Diomaye Faye mm. les énormes risques d'une gestion dualiste ou collégiale du pouvoir nit ñi ñu ngi am xel ñaar naka la Ousmane Sonko di toogee ci bile gouvernement. mais aywa am na raison bu war a mën a tax qu'on pose ce débat là. lan laa doon wax démb. démb suñu plateau bi lan laa doon dañuy wut ay problème pour jaxase leen. mënul nekk loolu la ruube. mënul nekk wut ay problème pour jaxase mais Ousmane. Ah est Ousmane Sonko est au-dessus de ça en fait. Mhm, mhm, mhm. Ousmane Sonko li mu am Bassirou Diomaye Faye amu ko président de la République benn président de la République au monde amu ko. pour te dire vrai Ousmane Sonko li mu am. toog pale bee ak mu bañ a toog pale bee ñoo yem. bu Ousmane Sonko bu ñëwee toog toog këram tey jii ni suba dama bëgg Sénégal yëpp reere euh, reeree ceebu keccax suba Sénégal yëpp ceebu keccax la ñu reeree loolu yàlla moo ko may. fortuitement la wax ci benn interview ni xam nga man damaa bëgg bañ a dugub. loolu rek la wax daal di jàll suba si benn maire bañ dugub desewul bañ dugub. dëgg la. est ma mm-hmm. loolu président de la république amu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu yàlla yoon na fi ay nitu yàlla sax amuñu ko. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait un peu l'unanimité dans nouvelle génération là. lu mu wax jeunes yi def ko and ceeg moom. tâche d'huile bi même en Afrique. mais loolu looy doyee looy doyee fonction président de la

mënoon na génn ànd ak Bassirou Diomaye Faye bu fekkoon gloire la bëgg parce que nit ñi fàkkee seen kër yëpp génn da nga yaakaar ni Diomaye moo tax ñu génn Ousmane moo tax ñu génn. Mhm. il s'est effacé kenn gisu ko ci guddi gi bàyyi Diomaye mu jël la lumière génn vraiment ce jour là xam nga kan moo jël prise boobu foto bi muy tàllal loxo yi. waaw tu sens c'est le président la c'est, c'est le futur président du Sénégal ça amul benn doute. Mhm. nit ñi wër ko des milliers de gens wër ko tu sens kii wala intronisé. Ah. te ko intronisé dem na seey na. dem na ñu def na wàllam seey na après dem après le lendemain conférence de presse tamit mu bàyyi ko mu dérouler wax mu ñu appuyer ko conférence euh, nu ñu tuddee campagne bi la même chose ñu ànd ba ci yàgg ñu tàqali ko mu géral ko beneen côté bi moom mu gérer après ñu daje mbuur mu bàyyi ko toujours mu nekk le maître du jeu. Mhm. nekk derrière lui et c'est ainsi que ça va continuer parce que lui Diomaye c'est son protégé c'est-à-dire nit ñi mënuñu leen jaxase dañoo yàgg. lu tax la. non li teg nii ak li ñu wax. gis nga yenn titres yi. waaw ay commencé ut ay dualité yi. non ça n'existera pas il y aura pas de dualité. Diomaye va gérer le pays Ousmane Sonko va gérer le Pastef parce que Pastef enjeu yi leen di xaar moo gën a mag li ma la wax démb. bi leen di xaar. nit ñi fàq fële war a jëmaat biir Pastef. Ousmane war leen a segg. Hmm. foofu loolu moo ëpp parce que ñoom dañoo am ay échéances yeneen yu ñu jëm. te réew mi dafa am fu ñu leen di xaar donc Diomaye démissionné na parti bi Ousmane mooy gérer parti bi. Diomaye na géré na géré gouvernement bi euh, vraiment euh, Ousmane c'est son conseiller naturel loolu kenn mënu koo dindi. yaa ngi wax conseil mais ñeneen ñaa ngi gis premier ministre ñu naan assemblée nationale. non non non euh, non il ne sera pas premier ministre Ousmane raw na loolu. il ne sera pas premier ministre. il va gérer le parti laisser Diomaye gérer le pays donc c'est son conseil naturel comme je dis c'est ton protégé. Hmm. Diomaye booyam la ñoo nekkoon ndawoon syndicat syndicat des impôts et moo ko fa dugal ñu ànd di xeex après mu après Ousmane dem Diomaye géré euh, Diomaye géré géré géré géré syndicat bi. Mm-hmm. donc euh, voilà euh, ñaa ñoo xamante ni ba ñuy ànd yow fekke ko ak fi ñu jaar yëpp. Mm-hmm. mu def li mu def ba tey jii teg ko ci bopp réew mi mm-hmm. nga bëgg ñëw tey di indiwaat yeneen problème bon. naan dualité bàyyi de. ils vont continuer. dina am yeneen yu génn. dina am yeneen yu génn ils vont toujours continuer essayer di leen jaxase ñoom ñaar. dinañ ko réussir te comme nguur dafa ànd ak saytaane aussi. Ah. doo mën lu ñaanal jomaay rek. que yàlla préserver ko ci loolu. parce que nguur dafa bëri saytaane. lu tax nga ni jomaay rek mu préserver da nga nguur moo doy waar. Ah, bu dee ci Ousmane la moom. mënuñu non Ousmane xalaat loolu ci moom. déggoo li mu wax Ousmane li mu am kenn amu ko. moo tax dara dara mu dara mëntul fëkk bëtam mu toll ni li mu am kenn ko koo xam ne boo waxee balaa ngay pare li nga wax nit ñi nekk ci loolu li mu am kenn am ko pour man Diomaye day utiliser sax pouvoir boobu noonu Ousmane Sonko yor pour insuffler jeunesse bi détermination pour ñu dellu béy suñu béy suñu béy suñu tool yi Ousmane Sonko ci rôle boobu boobu la war a am bu jomaay amee benn politique teg ko mu ne ah président décidé na gars yi jóg leen ñu dem gis nga li ñu commencé nii. c'est ça yaa ngi gis muy yaatu. loolu mooy defar réew en fait réew. détermination peuple bi ak foi bi ñu am ci benn projet moo koy defar. Mhm. mais du moyens yi euh, état bi di mettre en place état bi pour juste organiser la. Mm. état dañ ko soxla rek pour mu mettre un cadre boo xamante ni nit ñi danañ ci mën a jaar pour insuffler développement. Mm. mais état du pour vraiment jël ay euh, nu mu tuddati euh, employé ay nit. su ma déggee ñu naan dañuy promettre ay emploi non non état sa fonction principale n'est pas d'employer da ngay permettre un cadre boo xamante ni. secteur privé bi dana ci jaar ba mën a générer des milliers et des milliers et des milliers d' emplois da ngay renforcer secteur privé bi ñooñu ñooy créer emploi ay champions yoo xamante ni ñu ngi fi. Hmm. ay hommes d' yoo xamante ni ñu ngi fi créer entreprise nga mettre nga mettre un cadre boo xamante ni vraiment euh, cohérent et souple boo xamante ni ñoom danañ ci jaar mën a générer seen i business ba employer ay milliers de gens loolu mooy rôle état cadre et puis loolu la woon Sénégal. Ah. loolu la ñu amul woon cest à ñoom seen yitte yëpp dafa nekkoon ci xeex Ousmane Sonko. Mhm. ils ont utilisé tout euh, tous les organes répressifs de l'État contre Ousmane Sonko dem na ba Sénégal léegi jàpp fi manifestant moo gën a yomb jàpp agresseur. Mhm. ah ay da ngay génn sa kër ñu agressé la agresseur bi il circule toujours agresseur may mën a nduur fay banam. pour mujj. jàpp nañ ko. jàpp nañ ko est jàpp nañ ko. ba léegi dañoo enquête bi sax doo xam fu mu mujjee. enquête bi kat maa ko yoroon te damaa moon fële. ah da ngaa eh, <laughs> waaw Ngoné loolu war nga ah. waaw war ah. taxawal taxawal Ngoné nga ne. maanaam ñu ngi ciy accuser di tudd ay Pastef def ñu yëguñu. loolu moo grave na enquête bi suivre son cours parce que police nag mooy enquête waaw ah, mais mais voilà yow <laughs> ngoone ñun loo ñu may ñu jël nag. wax dëgg yàlla waaw may waruñu cee may de. Ah? waruñu may ci alal bi nañu ci may wax dëgg yàlla nga ci ñëw ñetti fitna nga. <laughs> na ñaaw waaw waaw. ñetti fitna ñëw rek salaamaaleykum seet na la xam sa personnalité. <laughs> sama noonu ñoo koy. foo ko gis. waaw fu ma ko gis sax. primature wala non ci li ñuy waxtaanee. Sonko Sénégal moo ko soxla.